nekk ci promotion yu doy waar gis ngeen euh, xale yi ñu ngi yor fu leen li ma ci neexal dañoo jox xale yi liggéey xale yi ñu ngi yor décodeurs yi yore parabole yi di wër ñooñu leen ko jaay 5000 francs donc ngeen koy jëndee suñu paree dañuy woo élément canal yi ñoom installé leen ko gratuitement ci 5000 francs ñi nga xam ne amoon nañ canal bëgg a réabonné waat 5000 francs euh, boo demee réabonné ak montant bu mënti doon 15 jours daañu leen ko may tout kanaal ngeen di seetaan kanaal yépp te du ngeen fay dara. ba 15 jours yi canal ñoo ñu mën. man National Geographic am am euh, science et vie. ah la Fatou na. la na de la ah? mhm. euh, heureusement comme na. merci madame Nia. Mhm. merci madame Nia. merci madame Nia euh, merci madame. tata madame. toppatoo ko joxaat ko ay yére ci seddaay bi démb. toppatoo bi ñu ma wan nii Mantoulaye. kii du sonn fenn. gi daal yiw ndeysaan boo gisee ndeysaan. ndeysaan sama tata bi loolu wax ne dama koo gis rek xaw xeme kii ko daal ñeewante ko woo ko mu ñëw ma jox ko ay yére yu diis mu sol yëpp toppatoo ko. ngoo ñu ngi koy ñu ngi koy jaajëfal moom tamit sama tata Yacine Ndiaye bu baax a baax a baax. suñu xarit bi euh, Ousmane Ousmane. Koli. Coly mii nekk Elton moom benn frère am benn mbokkam Souleymane Ben Jimé dafa dafa génn àdduna frère am la ndeysaan ñu ngi jaale di ko ñaanal yàlla mantulaay suñu xarit bi Baye Cheikh mhm. euh, Baye Cheikh ay pièces daa réer Cheikh Diop mhm. ay pièces mhm. daa réer waaw Baye Cheikh ci seen foire bi daal ay pièces am dafa rëy képp ku am euh, ku fa carte d'identité ak benn carte de membre ASCA ASCA mooy association yarkatu pitax yi nekk Sénégal xam nga moom buy noyyi sax pitax lay ngay naayoo. <laughs> bu bëggee seetaan télé ci kanam e, kaafu pitax yi lay ñëw toog di seetaan télé. waaw carte ASCA ci ak yeneen ak yeneen. Mhm. képp ku fa pièces yooyu Cheikh Diop nekk li layu rasul yi indil ma ko yow fexeel ba ma jot si rek. jox ko càq mhm. càq mu indi ko seen TV may fay càq càq Mm-hmm, incha allah waaw waaw waaw. soxna si dafa jëndoon ñetti pantalon jean marché zinc xaw ma su ko fa fàtte xaw ma loo xew mais daal euh, bu dee mi ngi dégg 77 471 79 70 mooy numéro bi alaaji ñu ñu ñu jublu si tës bi. ci doxalal. alaaji tey. tey ab xale bu góor moo ñëw. xale bu góor. xaadim Touré ñu ngi lay nuyu bu baax fu mu jógee xale bu góor bi. xale bu góor bi nee na waxul fu mu jógee nee na. 87 la juddu amoon na soxna am tay jafé jafé mbokam la won gis xalé bu jigen bi bëggal ko pom te yàlla tax waaye nak ragal na mbokam yi ree ko ci alaaji nee xalé bu jigen bi bam koy fekk ci waxam mom ci naka sudul non la nekkon xalé bu jigen bi sax wax nako lolu ke kan mo nekkon ci naka sudul non mom xalé bu jigen bi Mom xalé bu gor bee wax de. waaw xalé bu gor bi mo ni ba muy xamante xale bu jigéen bi sax da ko fekkon mu doon def naka sudul non. manam mu gadi ka ci genn pour dimbali ko ta yalla tax te bam ko takkee bayiwuko bayiwul nak sa non ju mu doon def lool la wax walu xale bu goor waaw neena dafa tok bés rek ab gendarme ñew ci kërëm andak magu xale bu jigen bi boo ko xale bu jigen bi nday gi ne ko xale bu jigen bi lay jël si mu ne ko amo droit jël ko ndax yow mayo mako won ñi bokk ak moom ndey ak baay ñoo ma ko may yow ndey rek nga bokk moom yaa ngi dégg. waaw ne gendarme bi amoo droit tamit intervenir ci kër. yoonam mag ji ne ko sama rakk ni ma ko fekkee neexuma te li nga war a def ci moom defoo ko. waaw mag ji mag ji mu ne ko déet. loolu futu meer bi la ndax ba ma ko ñaansee daf ma joxoon ngànt waxtu ba may woo la ma yoroon ma def ko ci terrain mais ne woon naa leen ko bu nu ma ko mayee li ma am nañ ma ko nangul lu mu yàgg-yàgg naa sagal xale bi laay xale bi dem na. ku ko yóbbu gendarme ba ak mag ja. ak mag ja. daa bëggoon a dem. yaay ja nee na moo leen yabal te moom ne du ko may baat tey du ko may baat ëllëg ndax da ko bëgg te bëggu ca waree. ah ah nañ ko déglu ba noppi. Chimel ñu déglu ko. Euh, man sama problème du ma du ma du ma ci jaaxal mooy. man ki ma ki ñëw sama kër ménagement. Euh, saaga ma ji faj ma jàngoro yoon jël sama jabar yóbbu loolu daal man mooy sama problème kan moo may sa kër menacé la jël sa sama magu borom sama magu soxna man magu soxna waaw moom moo fi jawam ku góor wala jigéen góor ok seen problème lan moo indi problème bi mu ñëw jë menacé la jël sa soxna yóbbu problème bi li dama ak sama soxna jege si dem xewam moom ànd ak moom ci jamu. fa ci di dem am mu am mu indi mu waat beneen problème moom sama sox donte def na boo ba pare jégaluwaat ma dama nangu la ma jégalu ma jégal ko ñaanal ci jàmm kafaar ree li may dem ba ñëwaat fii nag di ñu gisiwaat moom mun a day ñëw pour ñu gis ba moom nag day ñëw pour ñu gis man ma ko téye ci laa nattare man ñu gisiwaat te naa ne ci laa nekkoon ak moom lu yàgg sax ay mois ñu ngi jàmm amoon nañ problème nag amoon nañ bi ma amoon nag moom problème moom sama soxna xam na ko man xam naa ko problème bi lan la problème bi euh, ci ci ci ñàkk euh, def luñ ko defloowul la bon euh, su ma la nangul dëgg àgg na ci nag ci détails yi taxawaalu ak ak ak yooyu noonu mais nag man teewul bëgg naa ko ci ni mu nekkee woon bëgg naa ko ci tamit bëggoon pour suturaal ko bëgg naa ko ci pour jubbanti woon ko ba mu nekk ci yoon si ratam sax moom moo ma ci bàyyi woon avant nga koy xam da doon nekk ci loolu noonu nga ko waxee noonu da doon nekk ci loolu noonu di taxawaalu moom loolu ah parce que nit wax na ma ko ci moom bon moom ci làmmiñam waxaat na ma ko may dégg moom sama soxna. nee na da daan taxawaalu. waaw si. ok nga noonu nga ko bëggee nga nekkee ak moom ci noonu noonu. waaw ci noonu. malgré malgré yéen a ngi nekkoon mi ngi continuer di def loolu. malgré waaw si si mu ngi woon ci loolu ci si mu nekkoon. mais teewul ci loolu laa ko gënoon a bëggee teewul ci loolu laa ko gënoon a suturaal teewul ci loolu laa gënoon a am euh, euh, confiance ci moom. teewul ci loolu laa amoon su ma am ñoo bokk ak moom lépp lu ma gis lu rafet ñëw jënd jox ko ko. mu def ci yar boppam donc d' abord. loolu ay ma jëm. kon ne waaw. loolu d' abord may dem ba dégg coono nag moom bëggu ko wala soit defalu ko wala leen ko fekkee baaxul. man sama jëmmi boobu. jiw bi mu ñëwee fii ñoom ñu ñëw it ma ni gaa sama. Euh, ak yi sama sama nekk tooj ma. moom mu ànd ak benn xaritam nee na xaritam bi gendarme la. mais est ce que gendarme dina bàyyi liggéeyam. ñëw ànd ak nit accompagner ko muy toroxal nit ci kanamam. est loolu c'est normal. kan moo ànd ak gendarme bi. moom magam bu góor bi nee na gendarme la ànd. ok magam bu góor bi doon jël si sa soxna. ci li mu wax sama ay mbokk man. mais man li ma ci gën a jaaxal mooy. gendarme nan lay bàyyi ak liggéeyam. ñëw di ànd ak nit torox toroxal. d'accord sëriñ bi bala ñoo egsi foofu bala ñoo egsi foofu noonu bi waa ji di ñëw di jël si sa soxna maanaam sa soxna am na yaay am na pappa ñooñu noonu problème bi ñoom bi nga xamee ne yow ak sa soxna am ngeen problème ba magam bu góor ñëw di ko jël si lan la la expliqué ci ay waajuram. waajuram bu jigéen xale bu jigéen bu waajuram bu jigéen waa ji woo na ko ci sama kanam. na ko diw mu ne waa mu ne ko maa ngi ci kër diw maa ngi ñii fekk naa ko fi ak jabaram nangam nangam. yaayam ci jëmmi boppam na ko na ma jiw ma ne waa ma ñooñu maa leen ci yebal. ma ne ko kan yaa fi yebal ñoom ñu ñëw di ma menace di ma menace sama ay naw la di ma toroxal mu ne ma waaw. moom ci la daal di coupé téléphone daal di jóg réaliser la day jël bagage ma ne ko comme sama soxna man ak moom ñoo fi nekkoon ci jàmm ak salaam mais mën a toog déglu ma ak kan waxtaan parce man mayoo ma jabar man sama soxna ñaari magam yu góor laa xamoon ak papaam ak yaayam di ko jur yow nag bokkoo ak sama jabar nday ak baay yaay rek ngeen bokk bon kan man ñu ma may jabar ñoom ñoo mënoon a ñëw ak it nangu sama jabar ci force dem yóbbu man mayoo jabar Sokomma majabardiyo nga dimo passé dimo saaga wala dimo ménager da dimo ci fajante gi dëgg na man eh, légui serigne bi mom bi nga xamé né manam ndaw si eh, eh, magam bi ñëw na diko jël ndaw si mom naka naka la gisé mom dafa and ci ñom lañu wax wala en kan, tout cas ndaw ci man taxaw na ci buntu né bi fekk ko mu tok ci baax man ko nax da ngay dem ma bayil ma dem mais comme sama jamal loolu la ma wax loolu lay ya, appliqué ma bayil mu dem mais instant boobu yow ak sa soxna jotewu dara non non bu dinu am um, mo ak dama gëj am ak problème moom léegi yàgg na trop. d' accord d' accord xanaa yow ba ngay takk ndaw si dafa am loo xamante ne da nga ko waxoon ak ay kilifaam te defoo. non parce que man awma lu may wax te defuma ko li fanseel li ma ci waxam mooy li ma koy may dama ne la ndax ma ne ma koo may ma jël ko waaw am de baata tontu la. ñu ne mënuñu may yaay ji mënuñu may ñetti may ci nekk parce moom dafay sëy doomam bi ci des du ko may sëyee ko mais bu sëyee dinañ ma ko mën a may. boobu dafa am ay mag ay magu sa magu jabar yu ñu maye te sëyeeguñu. non moom moom jaayu xale bi dafa am benn magam bu maye demut. bu maye woon te demut sëyiwut. waaw nee na mu ne ñoom seen aada day bañ moom mu ne ci nekk di sëy mayewaat beneen doomam mayewaat beneen doomam ñetti may ñu nekk. ok moom nee na seen aada loolu lay bañ. ci benn at ko nag la moo xool. ci benn waaw. ok nee na seen aada la loolu lay bañ ma nangu ko nag li moo xool. Hmm. mais man bi ma ko nangulee loolu. c'est-à-dire que sama jabar man def naa ci li ma ci war a def a def mais teewul bëgg na sama bëgg naa sama jabar cest à tax. gën a yokk ma li ma warloo ak man dafa ma ko ci lépp moom yaayam benn bokk na ci parce que ci ñëw na la dama bëgg nga may moom ak yóbbu nga ne ko mënuma loolu parce man yor naa sama xaalis ba pare ma jël sama xaalis am ci lu ma ko def def ko ci ma koo may man ko ñu lay mbiri yoru yoruma te yor naa temps dinaa yónnee li may ma ko en attendant te yàlla dogal li may mébét mu ànd su ko defee incha allahu rabi li wàcc moom danaa ko def wala soit bu waxtu jotee jamanteeg nawet bi jeex li ci war moom dinaa ko def jël ñu ne waaw kan jàpp naa ne foofu diggante lu ñuy wax ak ni ñu bàyyi teg te ak bi ma waxante woon ak ñoom defe naa but ba àgg doon ñu ngi koy a àgg kan bu demee ba moom yaayam yónni doomam bi nga xam ne nee na dafa am doole jaar na ñepp et cetera et cetera ay waxam jaay ma doole ménagé ma daf ma la may def yóbbu sama jabar ci fas force li lay def la dóor nag parce que àgg na jeg man ndax xoj na ma ci faj na ma ci moom moom ci jëmmi boppam ma teewalis mu ba ma ma wala ci sama wala si soxlaal d'abord samay bagage da war la jël aw ma droit sama bagage su soxna na ko non du nee ngay réaliser parce que mayoo ma woon jabar te yow mi jël si sama jabar ci fas fas dama ci saaga ndey ko forcé ma woon jabar ñi ma mayoon jabar buñ ñëwoon fii li demee nii wala ñoom buñ ma ooy na ma dama dama soxla sax ma jël leen ko mais moo gën a rafet mais ñëw leen sax euh, nawle yow bi ngay ñaane xale bi da nga yónni woon say kilifa ñu ñaane ko léegi yow problème bi bu mu tollee fii wax nga ko say kilifa wax naa sa sama ay kilifa boo daa leen ma wax leen ko ah li ma wax nag mooy man ci sama wàllu bopp jiwuma maire bi lu lu tax mu di ma fayee lu mel ni te eh, ñi ma xam bon di dégg bu baax wax xam ciy wax xam na ne man jiwuma maire bi lu ñaaw wala lu bon wala lu tax mu fayee ma lii waaw bon jiwuma ko ko. xale bu jigéen xale bu jigéen bi da ngeen doon bëggante ba mu présenté la ay parents am nga dem pour ñaani ko. waaw. danoo bëggante bon dem nañ ba teg dulul nag buñ ko waxee yaayam dana man mosuma foogee ne ñaar ñi ñu ngi bëggante te moom du bëgg si ma di ko gàntu en tout cas yaay ji première fois ba du tëju rafet la ma wan jëf rafet na ma wan mais ci dernier milieu bi ñu toll ma wan daal ak li mu daan wote te deux vraiment tefe deux benn bokk si sa morom d' accord léegi nag yow instant bi nii sa jabar dem na depuis kañ sama jabar dem na depuis tey trois jours trois troisième ok euh, woo nga ko pour laaj ko ba xam ne day ñibbisi wala dafay ñaan baat wala yow da nga may baat wala lan fan la problème bi toll fu mu nekk nii. amoon numéro bu ma ko oowee en tout cas ki ko yóbbu moom ci moom laa mën a amee numéro bu ma ko oowee ci ñun yóbbante ñun yóbbante na leen nag ci man lay jaar pour am numéro bu mu ko jotee dana leen ku mu woo bu ko wuyu wala ku mu woo bu la bu bu boo ko wuyoo da nga ko paase. yeneen ma wax ndax lu ci topp mu ne moom damay ñëw sukki ci tara moom dëggalu ko moom mi nga xam sama jabar force yóbbu te may moo woon daw wala su wax ñu ci ko wala duma sama jabar dem na baa man ci ma ne ma nag fa jabar amatuma ko tus bi ci xas beneen bi ci topp na yére yi ko fekkee baaxul dugg na fii gën na dama koy ak xam ci ndax dina mel dinañ ko door ba yàq yaramam surtout man mi nga xam ne maa ko jëm xam ci moom jikko yu bëri xam ci moom jëf yu bëri yu muy def mais dama àndoon ak moom ci suturaal ko àndoon ak moom ci yërëm ko àndoon ak moom ci jubbanti ko ba mu jaar ci yoon sirat ala jeexagul de déedéet jeexagul ndax dina expliqué yu doy waar yoo xam ne moog jabar ji la en attendant ñu jàpp ne mariyam Dramé. Hmm? Mariam. waaw la foog naa dafa réeral ñaari valise moom ci biir ay euh, objet femme euh, yoo xam ni pour mariage la ci benn taxi diggante marché Pikine ak Kër Massar depuis démb la. Mhm. ñëwoo ko ci 77 912 98 38 ku gis bagage yi Sefou Faye mi ngi am 15 ans. dëkk euh, Cambérène quartier Diamaguène. neen dafa réer na depuis jeudi yaayam si Seynabou Niang papam Jibi fay ku gis kon euh, Seefou fay mii na nga ci 77 540 09 19 ki moom sama dëkkandoo la de Seefou Faye mii. kàcce hmm. jàmm gën. sant lay ki ma doon tàggee sànq hmm. suba ak jàmm la levée du corps bi. ñu koy hmm. jébal doom dëkk bu tudd Tobor. Tobor ah, euh, condoléance bi. ñu ngi koy amee ci kër soxnaam ki ne ki nekkoli euh, vraiment nag euh, Mantoulaye ci ay kàddu yu seede yu mm-hmm. bàyyeeku ci nattangooy police yem mm-hmm. police bépp police nationale yi ñëpp nee nañu ku ne mën na koo jaal sa morom euh, nit ku baax la woon mm-hmm. nit ku servir askanam ci police nationale def na Tiwaawan après def na commissariat central bu Géejawaay après ndeysaan nag ci la tawatoo daal di génn àdduna yal na ko yàlla yërëm ñu ngi koy jaale ay soxnaam ak njabootam di ko jaale ministre de l' intérieur di ko jaale toute la police vraiment kàddu yi seede yi daal dal na xel te loolu rek la nit di sàkku wax dëgg yàlla ñu nga doon liggéeyandool bu ñu bégee ci yow mhm. yàlla bég na ci yow moo tax yéen tamit uzkuru mahasina mawtaakum nit ki faatu ba noppi dee leen wax ay mbaax mbaaxam parce que dañ ko koy yokkal ci jëf ju baaxam euh, kon bokk euh, Souleymane Ben Jéeme yal yàlla xaral ko aljanna. amiin atte ko ci yërmandeef amiin xaral ko aljanna yi gën jàkkawe. amiin yaa rabbal aalamiin amiin. Chimère ku fi ne. Aba. noo def. mais ziar naa leen bu baax. Mansour ziar naa leen. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ma euh, Madou. Aba. dañuy amal fële ca Tëngéej mémorial euh, ak benn tournoi dégg nga. Mm, mm, mm. loolu war la. ndeysaan loolu kañ la.

di ay njaboot Moustarchid di def benn concert bu mag ak Mouhamed Seck Melo. Mm-hmm. waaw waaw loolu. waaw loolu day sama bos man day sama bos. abaa boobu yow yow boo fa jógee laaj invité naa la jàmmalaay maam Seydi sama waaje boobu itam le vingt cinq décembre mooy bisu appel de la jeunesse bu Chérif Ousseynou Laye. tubaab kàlla incha allah le vingt cinq décembre appel de la jeunesse boo xam ni. moom moo ko mës a woote. gannaaw dëddoom ba tey xale yaa ngi koy woote waa farlu si diine ji liggéey ba sell fondement ba dëgg du musa dellu gannaaw du musa dellu gannaaw le 25 décembre incha allah jàmm lay maam say les femmes divu pour la cause incha allah ñooy def concert boobu de Mantoulaye invité naa la ci yow tamit ak jigéen de waaw waaw ba nga ne les femmes dévouées rek laa ca war a ñëw femmes dévouées pour la cause moom ah yal na yàlla dooleel leen amin amin amin am ndam waaw waaw waaw waaw waaw incha allah kan militaire bu caaral waaw ñëwal waay Abba invité naa la de waaw incha allah dinaa ñëw de incha allah bu ñu fa jógee dem dem ci woote Seydina Limaamu Laay boobu moom woote Chérif Seynu Laay kéemaanu yàlla ga xaritu ndaw ñi borom borom message bu dal ba ndeysaan waxtaan wu neex a déglu wa ba muy wax xale internet boobu xale fooguñ ko woon ak sa sama xale ba internet bi alaay. boobu ñun foogu ñu woon ni toog ni def appel vidéo. wallaay dina am. dina am wallaahi wallaahi wallaahi. waxam moo kii quoi ñuy wax diggante Sénégal ak Chine. boobu xale lañ alaaji. boobu xamuñu woon sax ni Chine. wallaahi naan ma dina dina am jamono ngeen toog fii di wax ak ka nekk ca Chine. wallaahi. wallaahi di ko xool mu lay. xool di mu lay xool mu koy wax nii. wallaahi wallaahi. jamono dinañ ñëw ba loolu am. day maxtaan grande muraille lay lay ku ni ñëpp visionnaire la woon. ku ni ñëpp a yem. Chérif juum nga. wallaahi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. abaa voilà merci beaucoup xibaar dem beeg dikk bi di wéyee di fii Zik FM jaar nañ sànq rek rond point bu la Jolie Jaune pour tey bàyyi foofu fi nga xam moom mooy fële rond point Liberté 5 foofu la ma leen di wax de toujours ay liggéey yu am foofu la tax na ba boo mën a jaaree rek da ngay am ay déviation soit Liberté 5 wala Liberté 6 su ko defee boo fi yegsee am nga choix bi soit da ngay def tout droit autoli échangeur bu Sacré-Cœur soit là-bas vous allez rencontrer quelques difficultés ndax oto yi bàyyi ko ci VDN bi ak ñu bàyyi ko booru Wakam jaaree ko ancienne piste ñoom ñëpp dañuy transiter par échangeur boobu la entrée bu Sacré-Cœur góor gi boo ko taxlee tuuti li nga tegi sa tànk foofu te toujours travaux BRT bi nga dépassé lu ni mel pour privé Sacré-Cœur ou télé intersection bu Score Liberté si l'avenue Bourguiba là-bas aussi oto yi bàyyi ko stade Demba Diop dañu croisé yi ne ñu bàyyi ko école de police ak deux voies amitié yi su ko defee bu ngeen xaaree rek yéen ñi tàlla lu ni mel utali lycée Blaise Diagne foofu la dañ xamal des travaux en cours noo tax ba yenn saa yi nga teg sa tànk bi ba place au lit juste à hauteur du lycée Blaise Diagne foofu la aussi oto yi bàyyi ko du côté de Colobane danger par là mën nañ progressé utali bi nga xam ne euh, Carrefour bu université Jean Paté Ba moo lay meilleur université boo ko dépassé wala boog nga progressé

ci benn ñu dem. ñu wax. ñu continuer ay ca dañuy dem directement ci deuxième partie ba laaj yi. dégluwaat waa ji. Ah. dégluwaat waa ji parce que waa ji waxam pare pareegul jeexagul waxoon naa la ko. Ah, dañuy dem teewlu deuxième partie en naa ñu mën a dem ci page pub bi ay ci chimère ñu dem. dañoo maanaam ndaw si ndaw si yan jëf lay def yoo xamante ne nii yow chaque chaque fois yaa ngi wax ne suturaal ko suturaal ko. dafa am jëf ju ñuy def yoo xamante ne nii baaxul lan la. parce que day taxawaal. taxawaalu c'est-à-dire xam nga taxawaalu cest à taxawaalu boo ko waxee ku nekk ku am dégg-dégg dina xam bu baax la parce que bu ma jaar ci digg bi. ndaw si dafa am jëkkër am far wala lan la. na tout cas bu ma neexee na mën naa koo wax. parce que man man personnellement man mii borom këram su ma doxee ba dajeeg góor yàlla mu dox ba dama dama bëggoon nga may ma jël. ndax nee na magam nga te comme yow kilifaam nga baa bi te kan sama jabar kan am naa ci am naa ci preuve bu wéree kenn kooku nee na ma toog wax na ak moom liñ bu ay góor ñoo la sa jabar dafay def nangam dafay def nangam mais est-ce yow mës nga sa jabar mu taxaw ak góor wala nga fekk ko góor nekk ci kawam gis naa sama jabar mu taxaw ak góor man gis naa ko ak bët mais taxaw ak moom mën na nekk nitam non pas nitam parce que xam si kenn mhm. xamu ko can can xamu ko si maa ko fi indi bi ma ko tëjee dama ko am fa ma ko yem loolu dëkk bi day changé nit. waay moom si bi am na melokaan d' abord. maa mën a koy sax tey. moom dëkkul Dakar dëkkul Dakar. dëkkul Dakar man maa ko jël Dakar. ok kon ma ko fekkee mu taxaw ak moom. dama insisté man question war na ma mën a dem fekk ko mu taxaw. ma def ko ne mais non non la réalité ma taxaw patiente wu. su la taxaw patiente wu pratiquement. Euh, bàyyi ko mu wax ak moom ba ree ak et cetera ñu joxante loxo mu daal di dem. loolu amee. bon may ma ñëw fekk ko mu continué taxaw di xool rek fi doon fixé pour xool waa ji fi mu jaar man ni ma fekk ko mu taxaw mu jaar ci ginnaaw tàmp mbagg mu ne bëri te ci man. mais ma bon na war na ginnaaw dugg ci fi muy fi muy fi ma continué daal di dem sama daal di jël plan bi ma doon jël continué dem sama liggéey ba wàcc ci. bi ma ñëwee nag di waxtaan ak moom mu xuloo ci problème mais comme problème bi sama jabar la borom këram laa mais pour man ko problème bi jaare nañ ko am nañ problème jeex na depuis boobu ak léegi mu yàgg trop mais kan dem xaw bu ñëwaatee ñu bëgg ko sulliwaat euh, bëgg ma tereere waate beneen dégât boo xam ne bokkut ak li am parce que dégât bi am mooy dem nañ xaw am nañ ko problème bon dem ba war a ñibbi des du ñibbi moom si dem boobu moom sama soxna woo ma ne ma nan dajee foofu pour ñu waxtaan ñu dajee fa di waxtaan ma waxtaan ak euh, magu yaayam wax ko li mu mën a dégg xamal ko it li daan def lépp na ko xam bari na boo xaguma te su ma waxee mbokk mën na tam te li ma xam ci sama jabar bari na ci ci nekk ci moom it mën naa ko xam li ma ci xam it bari na mais taxawuma kenn di ko wax kenn dama jël lépp rek teg ci sama ndodd xam ne man maay borom këram mais li siti gi nekk ci moom ak li tax ma téye ko mën naa ko xam parce que bari lu mu metti ci ay ci sama phase ci ginnaaw te jigéen teg ma ko te ki ma ko teg tey jege na ma trop bëgguma tamit bon mu am ndam sama kaw mënoon naa yokk ci ma jàppoon sama jabar téye ko rek sama loxo ci yoon ak noonu sax dañ dem bëgg naa te man ni may wax ak yow dem na yóbbu nañ ko xaw ma fu mu nekk na mënu ma la ci mënu ma la ni Dakar mënu ma la ni ñi ñi di la te li baaxal tey laa ko gën a bëgg ci sama xol taxawul man ma bat bu may ki kay may baat te bu dee taxawul wax ma denn lu ma naqaj bu may kii taxaw fànn si ko wax ma naqaj li may donee sa nag moom taxul ma di ko di ko donee si projet bi magam bi li ma def moo ma naqari moom moo ma ménagé moo ma fekk sama nekk tooxal ma te toxal si sama jabar ci force force te moom mayu ma ko woon mais comme dëkk bi am na yoon bala maa dem ci yoon nag ay mbokkam nañu am na ñu a dégganteel ñu ñaan nañ leen buñ ma ñaan nag dinaa leen ko mayal mais lii daf ma métti trop ci sama xol moo tax ma ñëw fii ci euh, ma liggéey ci loolu numéro bi ba am ko euh, ñoo bokkoon benn dëkk man ak moom sama grand frère la jamono bi mu ñëw fii fi liggéey daf ma laa indil ay services yu bëree bëri macha allah ci laa am lu ma naqari ma woo ko na ko nag man dama am problème bu ma métti sama sox te moom sama soxna boo donte moom laa jotaloon problème ba fàtte woon nañ ko mais magam bi mooma minaa ci jaay ma doole wan na ma ne maa la doole ci ma wan na doon naa gàtt dinañ la garde corps pied dugg na ci code waaw léegi di ma wan ne man garde corps garde corps jiw laa woon bon ñëw def na loolu dem yóbbu sama jabar ci par force fanaanul euh, ko nag fanaan fanaanul wut ak man ci guddi gi yóbbu ko noonu ci guddi gi dem àggaat woo ma ci guddi gi di ma waxaat nan ma amatoo fi jabar amatoo fi suus laa wax faagawaat ma ci d'abord ma ne ko ah en tout cas mën nga ma ci bañ a faag ak lu mën a xew nee nga pour ma jot a sama jabar danaa sukk say tànk yi jéggalu raam jéggalu la ma ne ko toogal nga xaar ma ba ba ma ñëw sukk si say tànk ci la jéggalu yow. ci laa korte ne ak benn magam bu dëkk bu nekk euh, mu déggante ji ma wax ko ko mooy mu am ci lu ko naqari trop. parce que moom daf ma li mu wax mooy si que moom moo la ko mayoon bon ba ñëw réaliser secteur bi la affiché te di la ci euh, attaque faaga di la ci. di la ci xaja gi demee noonu. pourquoi yan droit la am ba ñëw ko ci def loolu. mais ma jàpp ne nit ki mën nga ko fekk këram. biir nawleem te man maa ko maa ko gi gaale bi fi nekk dem jëli ko ci point bi nga xam ne que laa war a daje nga mais bi muy ñëw man jàpp naa ne lii yëkkati ko mais ci li ma def ma met may laaj Sénégal ndax euh, boo amee sa soxna problème doon xale bu ndaw nag yàlla yàlla dogal na man mi waxee gone bu ndaw laa quatre-vingt-sept laa doon xale bu ndaw yàlla dimbale ma nag ma jël sama euh, responsabilité boobu ne dama nekk ki nga xam ne dama war a yor sama soxna ci njëkk man nag yëgguma ci kaw kenn may dimbale yëgguma ci benn mbindeef ci yàlla laaj ak sama waajur ak sama suuf si jébalu bon di ah, di ñaan yàlla na tamit lii ma nekk yàlla di ma ci ba du ma du ma du ma du ma du ma jéggaani kenn amoon sama jëriñ bopp nag teewoon sama soxna moo nag li may wax ak yow mosuma lekk bàyyi ko mosuma dem ba wàcc ba ñëw di jël lu ma ko dara indi bu la tey lii la bëgg suba dinaa suba ma lee la bëgg loolu laay def kan duñ ne bëgguma sama jabar sama jabar nag defuma dara guddi ma xew kii ma ñëw jaay ma doole am na xaritam déclaré ne Sandra moo la àndal laa bëgg a wax ci ñu ndax Sandra moo ndax dina bàyyi liggéeyam ñëw di ànd ak ñi ménage moomu àndal ma koo xam ne tey citoyen la comme citoyen yi ni ñuy doxee ci dëkk noonu la war a doxee ci dëkk te buñ ko buñ buñ liimee ni ñu limaale ko mais niñ ma ñëwoon ma doole dem ci noonu jóg sama jabar xaw ma ko dugal sama jabar enseigné. léegi mënoo laaj loolu ndax nag léegi la dëkk bi léegi nit ñi lan la war a def. d' accord sëriñ bi yow yow ak sa soxna ñaata at ngeen sëy. sama soxna def naa ne bu ñu amee at ñu ngi soog a am am doom wala amagu leen doom. amagul doom. d' accord léegi nag euh, maanaam yaay ji euh, bi nga mujjee dégganteeg moom lan la la expliqué. yaay ji man sama mujjee dégganteeg moom téléphone. doomam boobu laa déggante ak moom téléphone. mënu ma jiw mënu faa mënu ñeeñ maa leen si yebal. ok d' accord d' accord léegi yow pare nga pour may xale bi baat wala pare goo pour may ko baat. non pare gu ma pour may ko baat te sama soxna tey laa ko gën a. d' accord li ma naqari ba samay waxtu sama soxna. ñi ma néewal doole. kidnaal ma yóbbu sama jabar ci fan fan. te ñoom ñi ko yóbbu mayu ñu ma woon jabar ba ci toog beneen bi ci toog ci ma àndaloon. moom daf na man dama sàcc booy bi indi ko fi. léegi yow boo sàcc nan nga koy sàcc ay weer indi ko fi nekk teel ma. ma ne ko baat boobu nag bu ma ko wax ko ak yow ñëw ma xaw ma la. yow da nga ñëw pour accompagner Birane pour ànd ak moom. ma ji la dana sàcc. ci dëgg ci avant avant may sooy joxe nag bëgg na di kilowaat ma ko man jëlaloo ma kat doo wax loo xam ne ci damay xare di la sosal parce que ko waxtoon bu mën na la yaa wax. diggante bi nga toogee ci nekk yi mënoo ma wax da nga sàcc bëgg rek ñu nit tey wax ci na nga ko moom jëlaloo ko sàcc bi muy dem nee naa ko na ko jërëjëf xam naa turam nag dama ko tudd wax na ma turam wala kan ci mbaa wax na ma turam mën ko jiw maa mën na ko say taxawaay rafet na d' accord soo amaatul leneen loo ci dolli rek maa ngi lay gërëm di la sant. ah d' accord xam naa en tout cas yow Mohamed. Euh, li may wax daal mooy. maa ngi sant euh, ci FM. d' abord fi ma xam ci tool it. mosuma xëy te déglu ma leen. à chaque fois dama leen déglu. Euh, émission bi mosuma raw. en tout cas li sant bu baax nag dina ko jox. li ñaan yi limal nag ci nit ñi. li may dégg di ma déglu. ñu xool nag ñu xool. lan ci war a mën a taxawee. d' accord. néewal ko doole. d' accord waaw. merci. Ndiassa Ndiaye Alaaji ñu ne dafa benn passeport sénégalais carte GAP ak carte nationale carte CBAO ci benn calpe boo xam ni bu la bleu de nuit ci benn tata ligne 25 nag la jëloon vendredi soir ku gis na woote ci 76 809 42 39 ku gis pièce su Ndiassa Ndiaye Alaaji mhm. Eh, tay dama lay dama lay njëkkante ci commentaire bi. Hmm. ndax eh, mu baal ma nak parce que bëgguma sax nit di ñëw may wax mais gémmiñ moom bu waxul dëgg rek wax safaan. gisa man su ma doon jigen bi di mbokk jigen bi hmm. sëñ bi nga baal ma de waaye duma wat ak yow. ndax ndax di Sénégal dañoo woyofal lool lool lool baatu sama jabar daf may tromper te jigen bes boko ko jiiñee ba ci ay setatam yak nga ko ba ci ay setatam laax de mm-hmm. alaaji yak nga ko mm-hmm. donc balang koy jiiñ motax l'islam lu mu wax dañ ci wara teunk donc wara ko fu leer naññ ko midi bu njëkkoon alaaji da nga nan fekk sa jabar ak goor nga ne ko mayna la batam lu ngeen jotté nga ni mom xamna do netali mom du netali ngeen séparé wu parce que jabar ji du contesté xamna limu do def mhm. waye légui do am preuve do amane preuve nga am sa jabar ngeen jote mu dem sen kër yow nga ñew ci radio nga ni dama bëgg récupérer sama jabar waye sama jabar ji ma bëgg récupérer day taxawalu am ay far waye man bëggee na ko nonu yow bëggoo ko récupérer dang ko wërsi mhm. man pour man sa jabar bu goko récupérer da nga ñew pour wërsi wax aduna ni ki ngeen yobbu di ma nakaral tamit tay ko tek benen nakar gu metti bobu ba preuve du contraire man gëw ma njaaloo bi dañu war a bàyyi loolu nag saabu bu ñu jigéen rek ne jigéen bi day njaaloo saabu bu ñu joteeg jigéen rek ne dama ko bett ak far wala dama ko soupçonné ak ay far wala damay xool téléphone di ci parfois nga gis ñoo xam ne dañ lay indil preuve nii palpable nga teg ci sa bët mais kii mënu la jox benn preuve lu dul góor ñee ñëw ci man naan sa jabar nee na sama magam nga yow amul lenn lu palpable yoo xam ne ñun mën nañ ci taxaw ne jabar ji day njaaloo Mm-hmm. ku ko dégg xàmmee baat bi xàmm baat jabar ji di nga jël njaalo boobu teg ko ci ndoddu jabar ji muy loo xam ne da koy topp ci sa taatam attention niñ ko mën a pardonné góor duñ ko ko pardonné jigéen alaaji jigéen mooy defar société jigéen mooy defar nation jigéen mooy defar njaboot moo tax façon bi ñuy pardonné infidélité góor duñ ko ko pardonné moom jigéen te loolu man dama ko dama trouvé c'est normal parce que jigéen amul pour di am ñaar wala ñett moo tax nag buñ ko ko jiiñee day yàq àddunaam yàq àdduna ay doomam yàq àdduna ay sëtaam way wudul fay la balaa ñu koy teg kenn nag dañ ko seet seetaat ko segg ko ndax tooñ lay bëgg nuru léeg-léeg nag mu nuru tooñ alaaji te nañu moytu di tooñ suñu moroomu jullit tooñ suñu nawle boo xam ne ñoo séq sëy nañu moytu di tooñ man daal loolu laa mën a wax ci mbir bi góor wax nga dëgg de ku la yow la àndal luar. naa lool mu delluwaat de waaye nag li nga wax de moo ci doy waar jigéen daal boo ko xasee ba tuumaan njàllu yàq nga ko de bi doy man de bu la nee wax wax dëgg yàlla bu ma la nee bu ma la nee delluwaatal bu ma la nee jëlaat ko maa ngi lay wax loo xam bu doonoon du ma ko def. Ah, bu ma nee ndaw si delluwaatal maa ngi wax itam loo xamante ni. bu doon sa doom doo ko def. wax dëgg yàlla. Ah, xam nga njaaloo Mantoulaye dafa doy waar li tax yàlla ni la na nekk ñeenti nit. Hmm. yu xamantewul mm-hmm. te dooni jullit mm-hmm. di gor mm-hmm. te maandu jóge fu ñu xamul te xamante wuñu ñoom joxante joxante wuñu daje fekk leen ngeen nekk ci lii sabab ñu ni njaaloo ah nga xam ni kon fu yàlla teg fu yàlla teg fu yàlla teg doy na wax de <laughs> bu kenn ñëwee fekk ngeen nekk ci la ñu naan njaaloo kenn ka dem wax ko ñu ni ko wuurul kuy sa seede bu ñaar ñëwee ñu ni leen ay kompalookat ngeen ndax yéen a ànd. bu ñetti ñëwee ñu ni loolu dalul xel ndax mën naa am kenn kii nopp ku jigéen ki keneen ki doon ñeneen ñaar ñi nekk noonu ku góor ki ñeenti lay doon. ñu bokkul fu ñu jógee. bokkuñu fu ñu jóge xamantewuñu wuñu bokkuñu lu ñuy dox daje ci place bi non te doon jullit te doon gor te doon ko am xel yooyu da ci ànd de. yooyu mooy critères yi di nga nekk jullit bu ñu xamee ak màndu. muy ñaar jullit maandu di nga nekk gor di nga nekk itam ku am xel ab tof du seede njaa du seede njaaloo ab jaam du seede njaaloo ku maanduwul du seede njaalo ku dul jullit du seede njaaloo ñeent ñooñu jóge fu bokkul ñëw dajeendoo fekkendoo action loolu mantulaay bala nga koy tuumaal nit war naa tegu fu leer dëgg la benn ñaareel bi ci des yàlla moo ñu jëkk aye wala te jës sa suuf bu leen di yëdduwante di luñ bët mantulaay ku seet gis mhm. boo bëggee yow madame boo bëggee nga xool sa téléphone gaawul ngay xool sama bos bu la neexul dootuma xool sa bos xamul tax mhm. damay bañ gis lu ma jaxase mhm. gis nga gis nga jigéen baab bi ñu ngi lay ziar bu baax boo ne boo ne boo nee fii laa bëgg nga xool fa mu xool fa daanaka li ci des ak jubbanti lay doon naxante matante nangam nangam xuloo tey juboo suba yëpp ay xeetu dikk ko encadré ndànk-ndànk mais egg nag ci ni ko danga doon njaaloo biir na ma ni yow mi dangay ngay dund infidélité ah loolu moom dafa xaw a garaaw dafa doy waar laaj boole ci nag moom booy bi kii xale la xale la ndax am na ñaar yu mu antanul antanul abandon amul antanul sentiment wu

diggante bi ngay amee benn doom ba ñetti doom sax toujours dafa am ay moment crucial yoo xam ne wala ay moment intime yoo xam ni buñ la ko xañee ci diir boobu rek faw mu faw mu faw mu touché la moralement. dëgg la donc dem gi mi ngi koy travaillé ndax daa bëgg jabar ji ñaareel bi ni ñu ko jëlee jaay doole am na ci. jaay doole am na ci certes noonu nañ ko mën a woowee parce que mënoon nañu aw ba beneen yoon bu dul boobu mais aussi man. mais lan la euh, def ban jëlee ko noonu. man Mantoulaye. ku tumal sama rek njaalo dina la laaj ay firnde indi wul firnde bu xana mom baña dem tok grawul mais bu nee daa bëgg a dem ah déet dama kan man may taal sama moto bu ko nak dëgg la. waaw waaw ma kay jappalé bu mu dem so so tumalé jigen njaalo alaaji ba dem kalamé ko ay mbokkam te indi wo firnde su mbokk yi amé ful dañuy dem jëli seen doom parce que yow bu doon yow mën nga ko muñ alaaji bu indi wo firnde alaaji bu dé mën nga ko muñ da ngay ñëw ne len doo wax dara da ngay ànd ak moom yedd ko jéem a xool noo ko noo ko defaree ba mu toogaay ba rafet su nekkee mënoo ko muñ nga ne ko may naa ko baatam mu dem mais du moment où yaa ngi ñëw kalaame si te yow façon yéene may baat rek am na luy laxas suuf alaaji day am luy laxas suuf parce que nit soo ko bàyyiwul da ngay jël option suturaal ko yow mi yàlla say soxna da leen di suturaal. Ah, ko deful say soxna tamit dañ lay suturaal yow. doo nekk man damay suturaal sama borom kër moom it mu may suturaal. du moment où xaawi nga suturaal rek alaaji leneen lay tudd mais du sëy waaw du moment où xaawi sutura mi ngi am ci diggante ñaari goro yu nekk. leneen la mbir mi tudd mais alaaji tuddutul say ku nekk say défaut ku nekk say défaut. Hmm. mais du moment où génn nga wax defoo keneen ki rek suturaal too ko. ah man de suturaal too ko man de wax dëgg yàlla daal. li muy wax lépp man comprendre naa ko àndoon naa ak moom. bar foofu point boobu daal la àndut ak moom parce que parce que parce que parce que jabar. jabar daal boo ko fekkee mu njaaloo sax nag mun ngaa jël say décision bàyyi ko. Mantoulaye jigéen ju juum Ahmed Aïdara nettali na ko fi nettali na ko fi ay yooni yoon. mu ni kan moo ko nettali xaw ma juróom la xaw kenn ci xaritu way juróom yi xisa bu doy waar la mais bu am solo waa ji dafa dem dugal yàgg fa fukki at. ñëw fekk jabar ñu trompé ko ginnaawam ba jabar ji am doom ñu tudd ko def yëpp waa ji ñëw ni jabar ji dama la may baat bàyyi waa ji nekkoon nag jabar ji ci kër gi woo waa ji mu ñëw toog mun ko lan nga bëgg mun ko dama koy may baatam mun du ma takk jigéen bu bu mu fi jógee dem muy njaaloo ba am doom sama ginnaaw. Mm-hmm. mun yow mën ngaa waat ci yàlla ni bi ngay génnee fii dem tugal ba léegi séqoo ak beneen jigéen boo takkul. waa ji ni tekk mun ko waat ko est que mën nga koo waat waa ji ni tekk mun ko ndax yàlla dalaa nattoowul ngay ëmb kon ñetti doom ngay indaale moom benn nga ko fekkeel bu la yàlla nattoon yow ngay ëmb ñetti doom ngay indaale parce que mënoo waat ni yow bi nga génneeg léegi seqoo ak jigéen boo takkul bàyyil jàmbur bi mu toog te nga suturaal ko tir uf sa doom ndax mënoo fexe ba gis bàyyi xale bi mm-hmm. loolu Ahmed nettali ne moo naa moo ziar naa la bu baax a baax jon jon jon jon daal bi suñ Babacar bi wallaahi mënoo fexe fexe fexe fexe mantulaay ba ki nga ki euh, bàyyi xale bi ñëw ne la maa ngi nii lislaam itam may na tey yow bu la yàlla nattoo ba nga am ak jigéen doom fekk mu nekk jabaru jàmb may na la balaa ñu laa rey yow nga ñu bàyyi ba doom ji juddu nga dem ci kër waa ji tudd fa doom ji jël sa doom loo ciy dogal nga dogal ko ci ñu soog laa rey bu fekkee dañ lay bu fekkee àtte bi lislaam la te ku góor kooku bu bëggee jabaram de continuer wu jabaram bu fekkee yoon reyul jabaram. danga ni danga ni ñaar ñuy sëy. ñuy sëy keneen jóge fële. ñëw ci biir kër gi. ëmbal jabar ji waaw yoon may na ku góor ki laataa ñu koy faat. mu ñëw ci kër. ci kër waa ji. du fa doomam rey fam xaram. kër góor geneen waaw rey fam xaram soog a jël doomam yóbbu.